di leen siyaare ci bis bu mag bi ñu nekk muy bisub lislaam di bisub yoonu murid yëpp di bisub fàttaliku suñu maam yu baax di sëriñ Bousso bi Bousso ak sëriñ Saa Bousso ñuy ñoo xam ne nijaay Cheikhul Khadim lan radiyallahu anhu bokk ak soxna Jaara tey ñu nekk fii ci Mbàkke Bawal di ko di ko di ko def muy bisub ñaan bu ñuy def at mu jot ñu di ko def ci teewaayu njabootu Bousso bi gépp ak mboolem yi nga xam ne rek eh, njabootoo nañ ci ci ci kër yooyu ñu di ko def ci Mbàkke Bawal tey ci njiitu Sëriñ Ibrahima Bousso Birkilaan ñu ko ñaan mu yàgg fi la fii ñu nekk nii nag di fi ñuy wax armeeli Mbusoobe armeeli Mbusoobe di barab yu nekk fii ci Mbàkke Bawal comme ni ngeen ko xamee ñu denc fi ñu bari ci mbokki Sëriñ Tuubaa yi radiyallaahu anhu ak ak njabootam ak i taalibeem barab bi ci suñ ginnaaw di barabu sëriñ bu Bousso bu Bousso mi nga xam ne nijaay Serigne Touba la di koo xam ne ku amoon solo la ci dunduk Serigne bi ndax moo ko daral alxuraan te taxaw na ko ci wàllu yu bëree bëri. Euh, Serigne Bousso bi moomu nag fii mu nekk di barabam doonoon foo xam ne la doon cosaanam mooy këru Cheikhul Khadim la woon. suñ Touba bi mu nekkee fii ci mbakke fii mu mujjee am kër mooy fii ñu taxaw di wax ak yéen di armeeli Bousso bi fii ci ginnaaw di barab bi ama dasasin bi fi Serigne Touba bi mu ñëwee Serigne Touba jox ko kër gi dem sañ ci Daaru Salaam mu dëkk fi moom suñ bu soobee nangami at bi mu fi bi mu fi bi mu fi bëgg a jógee nag mu batale woon ne bu fi jógee nañ ko denc ci biir jàkkaam kon barab bi ci ginnaaw moo nekkoon jàkkee sëriñ Tuubaa ji nga xam ne moom la fi amoon sëñ bu soobee batale woon ne nañ ko fi denc bu fi jógee kon loolu mooy cosaanu barab bi ñu denc ko fi ci eh, ama jey sachin wala bokk at ma ko jiitu rek ca bay sachin ba ca mujj ga ca ca zilxijja ga mm-hmm. ndax bi mu fi jógee nangam weer lañ ci rek ñu jëlee fi sëñ bi ci géej gi kon fii mooy barabu sëriñ bu soobee armée yi dañu denc fi ñu bari sëñ Tuubaa moom moo digle woon ñu denc fi ñu bari ci ñoom ki ñu fi njëkk dencaat ginnaaw sëñ Bousso bi wax nañ denc fi ngi fii ci ñu fi dañ ci waa kër sëñ ak i taalibeem yoo xam ne am na ci ñooñ sax sëñ Baye Gueye ak ñu demee ni ki ñoom danaan bu leen bu ñu leen di yóbbu yaaram leen jëlee indi leen fii te danaan ba ba ñuy àgg bu ñu laal suuf hmm. ba ba ñuy àgg si bu soobee bu ñu leen teg ci suuf ñu bare bare la ñoo xam ne am na yu ñu leen di ràññee ci ay mool yoo xam ne Sëñ Tuubaa daraan booleeg ñoom bu ñu leen di indi fii ñu di leen booleeg ñoom di leen fi denc fu Sëñ Tuubaa fonkoon la it ndax wax na ne sax ne bi ñuy denc lu Sëñ Mor Jaara Sëñ Mbàkke bu solo yóbbante ne ko na ko taxaw ba pare ne ko bu noppee de na wax ne eh, yonent bi bi fi jógeek léegi de jëmm ju gën Sëñ Mor Jaara tiimaatuñ ko fi hmm. daan ne ko nag nañ nañ dox nangami xasab denc ko fa dañ xam ne diggante suñ bu soobee ak foofa ñu koy denc malaayka yi nga xam ne ñooy laaj ci biir bàmmeel xamuñu mm-hmm. xamuñu fa mooy kuñ fi denc ñu ñu ko xam nga ne loolu kawe na loolu ndax suñ bu soobee moo mel noonu mm-hmm. bokk na ci suñ Tuubaa yi ko yonent bi sama waxoon bi mu ko gisee ci Tuubaa bi mu defee xalwatam googu laata muy dem ci géej gi bokk na ci sart yi mu ko waxoon ne ko yoonu géej gi mën a tutane mooy maa daama xam nga sa nijaay joo xam ne mm-hmm. ku ku am cër ci suñ borom la te fonk na la ba lu ñëw ci sa kaw dana ñaan suñu borom mu teg te bu ko ñaanee suñu borom dana ko teg ndax suñu borom da ko rus mm. kon ku suñu borom rus mm. euh, loolu day wane rek ne am na solo am taxawaay sëñ bu soobee ci sëñ tubaa démb la woon ci ak bi mu ganee àdduna moo ko dalal alxuraan ci dundam taxawu na ko waaye dem na sax ba fi mu teg sëñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw di ko waxaatal sëñ bi ci boppam mm. kon loolu lu kawee kawe la ci bisam nag lañ nekk tey njaboot gi baaxoo saabu bis bi ñëw ñu àndandoo ñëw fi siyaare barab yi fi ne jokk ñaanal mbokk yi ñu fi denc yëpp ñaan suñ borom dolli jàmm ci réew mi kon bis bi li ko tax a jóg rek mooy jox ko ak mbokk ak yu ni ki noonu kon xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi rek jox sëñ Fallou Bousso Tamba mu moom mi nga xam xëy na bu ci jotee ci kàddu gi sax ci lay gën a leer te ci lay gën a ci lay gën a ci ngeen koy gën a mën a xam ñuy sant bu baax di di di yëggalu ci ci ci ci kàddu yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh arrahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi zawi ridwaani wa tamkiin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Uh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di sant yàlla bu baax di sant a Cheikhul Xadim itam mel na ne uh, kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Maam Moor jotal uh, li ci mat a wax lépp ci jataay bi wax na ko li ci mat a leeral lépp ci solos fii ñu nekk muy béréb bu tedd bi wala béréb yu tedd yii ak it solos bis bi ak daje bi li ci matoon a wax lépp mel na ne wax na ko indi na cosaanal fii nga xam ne moo di bërëb bi indi na itam jëmm yu tedd yu baax yi nga xam ne ñoom lañ fi ñoom lañ fi def te doy na béréb bi tedd nga eh, ne ku mel ne sëriñ bu soobe eh, fi la nekk ku mel ne borom saam ni mu ko waxee léegi nga xam ne keroog bi mu wàccee liggéey bokk na ci li sëriñ Tuubaa seede ci moom wax ne eh, borom saam moomu de moo ko sëñ Ibra Mbacke maanaam sëñ Mbacke Ibra nga xam ne dafa doonoon way jur ci moom mbokk ak sëñ Mor Anta Sali maam Habibullah ñoom ñaar day laa xam ci jëmm yoo xam ne dund nañu ba dem ci seen boroom te yóbbaale wuñu bor yóbbaale wuñu bakkaar loolu nag jafe na lool wax na ci it ne keroog bi mu nelawee bu dul woon ak alquran ak sunna ak jariñ gi ma war a jariñ bindee fii ci àddina fii ci àddina kon dootuma fanaanati ci àddina génn guddi lii sëriñ Mamour wax ci ki nga xam ne nag moo di nijaayam ju baax ji nag loolu doy na sëkk moom itam ku ne xam ne cër bi ko yàlla joxoon ku ne xam ne itam daraja ji amoon ci boromam boole wilaaya gi ak ijaaba euh, wax nañ ni ci jamono moo doon xutbu zamaanu euh, maanaam waqti yii moo nekkoon xutbu zamaani waqti yii moom sëriñ bi loolu loolu lu lu lu lu siiw la loo xam ne am nañ ci ay kii kon nag ku ku yàlla baaxee dimbale la tey ba nga ñëw fekke bis bi te budul woon sax loolu lépp sax rek. ñëw siyaare si béréb yoo xam ne dañ faa denc ay jullit muy ay armeel ku ne xam ne njëriñ li nga xam ne ak solo si nga xam ne am na ko yaakaar naa ne bokk na ci li sallallahu alayhi wa sallam daan soññee ndax daan wax ne na ngeen koy def ndax dana leen fàttali dee te jamono jii ñu toll lépp loo xam ne luy tax nit ki di fàttali di fàttaliku dee la di delloowaat boppam ci boroomam yaakaar naa ne loola lu mat di sonne la lu mat di jëfe la loolu moo tax ni ko sëñ Mor wax sëñ sëñ Maam Mor waxee léegi rek bokk yi baaxoo saabu bis euh, ñëw siyaare si béréb yi delloowaat suñu bopp ci suñu boroom ñaanal suñu euh, maam yi nga xam ne ñoo fi tëdd ñaanal leen mboolem jullit ñu fi tëdd ñëpp ñaanal leen jéggalu yàlla ak yërmande yàlla yàlla dool li seen leer hmm. dolli ñu taas ci ci seen barke euh, duñu mën a nag fàttaliku euh, ñu ñu baax ñi fi nekk fàttaliku bi itam taxawaay yi nga xam ne moom lañ fi am tey te suñu xel demul ci kenn ci njabootu bu Mboussobé googu nga xam ne mooy ci njëkk woote bis bi njëkk woote itam ziar bi te moom it mi ngi tëdd fii ñu uufal ko maamam ju baax ji di sëñ Abdou Salaam Bousso moom it kon ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax di fàttaliku boolem mbokkam yi nga xam ne ñoom la fi bokkal nekk ñëpp ñaan suñ borom dolli seen i leer te taag sama xam naa daal li ci matoon a wax lépp sëñ Maam wax na ko Euh, bëgg man man lu ma ci man di wax it daanaka damay baamtuwaat rek kon daal ñu ngi ñu ngi sant yàlla bi mu ñu mayee taw tawféex yi ñu mën a ñëw fekkewaat euh, li nga xam ne moo di ziar bi euh, muy muy muy muy lu am solo loo xam ne lu mat a def la lu mat a bàyyi xel la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mii ki nga xam ne moom la ñu jox barabu mbosoo bi bi sëñ sëñ Fall la koo joxoon moom la ko joxoon waaw kon ñu jox la rek nga tënk loolu ci ay ci ci ci maanaam moo nuyoo sangi tedd yi mm-hmm. gannaaw bu sangi tedd yi waxee mm-hmm. di musul seytaane ñaan tafaay bii nag ku yàlla bind rek moo la war ndax ku bëgg a jàmm war nga siyaare borom saam suñu soobee mm-hmm. ndax koo xam bi ma ñëwee ci liggéey bi suñ borom borom saam ma ne soo yu mu nekk xëyee ma xel ne si yontu bi man suñ tubaab su borom wan ma suñ bu soobee ne du ma diisoo waaye naa diisoo sëñ bu soobee mm-hmm. ndax ku yàlla rus yontu rus la mm-hmm. sëñ Tuubaa mi xam moo tax yi bind jaam yi ñu jëm àjjana mm-hmm. ne su ma xam ne si yontu yoon na sëñ bu soobee fii daal ak la fii daal yemukaay la sëñ ah, maam maam ma lay mëtt ma nga ne mooy ta maam mëtti Bousso moom mi ngi ci ci kanam sëñ Bousso bi waaw ma lay mëtt ta mooy ta maam mëtti Bousso mooy ta mi bi yàlla dogalee Sëñ liggéey liggéeyam nag dafa am lu mbaaxoo de wut jawrin rek soog a liggéey bi soog a génn sëñ bi ko liggéey sëñ Ceerno bu mi ko liggéey liggéey bi daa jot suñu borom soog ko feeñal waaye liggéey bi ñu ko liggéey bari waaye nag moo ko moom moo tax soo sëñ Malamine Mati mi moo ku mën a seereel borom ndax ku yàlla dimbale la ndax rek moo tudd Njoogu Mati ne moon taalibe mi day su boo xëyee di nga sama baam la nga fee xacc leen ci yàlla la jógoon nag dellu si yàlla. kooku kenn xamul ne moom Ndiogo. moom Ndiogo Mati ah, moo topp ci mu leen Mati mii. Mm-hmm. fii taa bari da bu xam bi sëñ Bakku si nee na. Mm-hmm. ñi ngi wax sëñ Bakk ñi ngi wax sëñ Fa sëñ Maodo Daara ak sëñ Moussa waaye ñi fi nekk man ñoo doon bëri bi sëñ Moussa sëñ Bakk bu soxna ko. Ah, mën na ñi fi ne. mu ne ñi ngi wax ñi ngi wax borom saam suñ ko sóobee waaye ñi si bëri mën ñoo ram waa bëri mën leen ramu ah mën nañoo ram waa waa barab bi ñu fi ci des waaw bu ko wax dëgg la dëgg la jërëjëf maa ko yor wenn tey ba cent neuf jërëjëf juróom fukki at ak ñaar aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain noo ngi ziyaare mbokk yëpp di leen ndokkeel ci bis bi di ñaan suñu borom soone wa taala taxawaay ñu ci taxaw ak jéegu yiñ ci def mu nangu ko te fayuñ ci lu kawe njort li nga xam ne ay kàddu la yu fi mat a jottali ah, euh, sëriñ Mamor wax na ko ak sëriñ Mouhamadul Fadil mi ci barab bi solo si ak ki fi tëdd kon nag euh, lu am solo la di tawfiq ci yàlla baaxe ay jëmm ak doomu aadama di seenu njaboot ñu leen di fàttaliku kon liñ ci yokk rek mooy buñ leen dee fàttaliku wax nañ fi ci sëriñ Bousso bi ijaaba bi mu amoon ak sori gim sori woon ci boroomam waaye ku ne xam na ne taxawaayam ci àdduna it taxawaay bu am solo la woon ndax ba ñuy dem euh, Saalum di jihaad ànd ak Maba Cheikh Mahamadou Bachir wax na taxawaay ba mu ca amoon la fa daje woon lépp di boroomi xam-xam di niti yàlla dañoo wëlbatiku woon jiital ko teg ko ci seen kanam lépp lu jëm ci lu ñu soxla ci seen wàllu diine ñu teg ko ca kon dafa doyoon niti diine ci jamonoom loole it kon dañuy jàpp ne am na fu mu jaar ba àgg foofa jaar ci jaamu yàlla sàkku xam-xam ba am ko di ko jëfe jub loolee may ko mu àgg ci lu mu bëgg ci boroomam am ko suñu tamit alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu siiw boobu xadisul qudsi man aada li waliyan faqat azantuhu bil xarb dafa wax fi nit di jaar ba am cofeeluk suñu boroom ba lu mu bëgg suñu borom fekk ko ca lu ñu lu mu muslu suñu borom musal ko ca di loxoom di bëtam di tànkam loole nag kon la koy maye buñ ko dee fàttaliku di ay njaboot tamit dañ war nañ caa bàyyi xel loolee fexe ba ñun ñëpp ñu gën a góorlu xam ne loole kon mooy ndono li nga xam ne moom lañ koy buñ koy ñaanalee fàttaliku ñaanal suñu bopp it ci suñu dunduk àdduna ñoom ay nitukaay lañ. Mm-hmm. ay royukaay lañ ñu jéem a fàttaliku it jaar-jaar yooyee ak jikko yooyee ak taxawaay boobee ñu war koo am ci suñu diine waaye war koo am ci suñu jamono. loolee nag kon xëy na liñ fi waroon wax yëpp waxees na ko kon dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala jikko yooyee ak jaar-jaar yooyee ak doxalin woowu yëpp. yàlla bàyyi ko fi ci njaboot gi ñu taxawee ko dundal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ok jërëjëf sëñ Sam jërëjëf Baye Cheikh Fall ak sëñu nijaay sëñ Fall Bousso ñu ngi leen di sant bu baax ci kàddu yu am solo yi di wax ne mbokk yi kon lool rek mooy mbir mi euh, ñu fàttali nag ne yii yëpp ñi ngi koy ki koy koy taxawal mooy ñi ñuy woowee al muassasa saqafiya usra al musobiya mooy kuréel goo xam ne association boo xam ne ñi ci tënk mooy ñi sëtoo ci bu so bi ak Serigne saabu so te li leen tax a jóg rek mooy liggéeyal Serigne Touba ci seen kër maam mm. mooy dundal ndono li nga xam ne moom la fi seen i maam bàyyi mooy dundal xam-xam taxawal ay daara ndono li nga xam ne moom lañ fi ba ñu fexe ba génne ko tasaare ko sàmm ko loolu mooy li leen tax a jóg euh, ñu koy wax mbokk yëpp rek ne loolu mooy li leen tax a jóg kon ñëpp ñu ngi leen ci woo di wax ne siyaar bi xëy na ren lañ ko jëkk def nii dañ ko daan gonte mm-hmm. fas nañ yéene at mu jotat incha allah bu mii di jotatee rek ñu ñëw fi siyaare daayir yëpp ñu ngi leen di wax ñu bàyyee ko xel incha allahu taala ñu xam ne daal kon loolu rek mooy mooy li ñu doon wax fii xëy na kàddu yi li li koy gën a yaatal bu ñu àggee ba ca penc ma incha allah danañ ko fa def mm-hmm. ñu wax sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu sa ñaan li suñu tubaab bëgg yéen seen ngeen di ko fàttaliku aswala bu soog ngeen toll ni moom aw fan téeméer ay tegal ñeent fukk a ngi ko mbaa juróom ñeent fukk mën naa nekk te naa nekk incha allah ndax sëñ tubaab ci njaaram daana wayantoo kuy def lu baax di wax lu baax danga lu baax ku def leen def leen danga leen yéen yéen ci li xam moo leen war lii na yàlla sax te bu ma ko te may itam sa wax wul jóobe ànd bi rafet na neex na kon nag ñu ñaan si borom daal ngi nekk teew ci borom si musu bi ak borom sàmm ñaanal taalib yi njëgal ñoom te ñaan leen ay leer yu doolee ko سبحانك اللهم صل على سيدنا تبين أمنا سيدنا بدنا وهب لنا سدى والتوفيق تبين أمرنا سهلنا بدنا وهب لنا سدى والتوفيق تبين أمرنا سهلنا بدنا وهب لنا سدى والتوفيق بسم الله الرحمن الرحيم اللين أموري كسر خيوك الأقدام albisittori allah yiɗi mawri ka sorhoyo ɓe lakɗa albisittori allah yiɗi mawri ka sorhoyo ɓe lakɗa sonam yaman ajaba manistajaba abi jafrillahi yaman ajaba manistajaba abi jafrillahi yaman ajaba manistajaba abi jafrillahi ismam yasir jamila yasir fadila an tawri wasila iskolar yasir jamila yasir fadila an tawri wasila iskolar yasir jamila yasir fadila kon nag ñu ñaan ñaan dugg ku tedd ki yàlla biir moo ko wax. waaw waaw waaw